ñun lii yëpp si stade bi lañ jëm lii yëpp si stade bi lañ jëm sama gars yi gars yi noonu lañ gisee combat bi. combat bi Papa daan bu soobee ah. daan bi mooy daan. Dora yaa ngi ma ci rajo de noo la gisee combat bi ah noo gisee combat bi. non lamb ju nar a neex lay doon. ah nar a neex. Kërëmeer gañ. ah déggu ma. Papa Sow nga faral. ah non da ngeen di toog yéen ñaar ngeen xoos ensemble. ok ok. sama gars yi moom lépp fair la làmb lépp fair la lépp fair la eh ak ko mën a bëre anaconda rek sama gars yi moom ok ngang baalo kase ngang kese sama gars yi moom non borom nii ndeysaan jaaykat yaa ngoog jaaykat yi génn ngeen si tey mbaa ah café Touba bi jar na euh, boisson bi jar na ndox mi jar na sandwich yi jar na lépp jar na ah yéen daal boo leen sañoon chaque dimanche laa mel nii chaque dimanche laa mel nii daal ah dëgg la jërëjëf amu leen benn problème amuñu bi daal mais nit fii la ñuy jëndee amul problème ah. dañoo war a bàyyi ndax dañoo jënd dëgg la ticket 3000. nga jënd ticket 3000. waaw ticket 3000 nga war a dugg yeeg def dara. dëgg la waaw loolay problème bi. jërëjëf boo yëgee daal nga ñaanal ñu daal. incha allah.